nag parce que jot nañu ko léegi mais comme disait Souleymane tout à c'est assez c'est serré mais ci résultat yi ñu yi jot nii yëpp Yewwi Askan Wi moo jiitu foofu Euh, alors je les cherche mais je pense c'est les aléas du direct <laughs> parce que fichier bi dem na. que les résultats tombent tellement kan moo nekk fële foofu ca ca Guédiawaye mu mu alors a quelque chose qui ne se dément pas au nord quand même Podor tout ça c'est presque joué au mois où on parle parce qu'il y a énormément de bureaux qui Mamadou Racine Sy en avance quand même sur ses concurrents voilà et puis euh, très tôt euh, à Ndioum par exemple euh, il y avait assez il aussi un écart assez considérable ci compilation yu ñu def euh, Cheikh Oumar Anne mais par contre les grandes villes Thiès li ñu fi gis jusqu'ici quand même Yewwi Askan Wi est en avance voilà à mhm. Thiès à Kaolack wax nañu ko léegi avec la coalition de Serigne Mboup à Yewwi est en avance mm-hmm. voilà waxuñu du basculer wala du ñu rattraper mais Yewwi Askan Wi est en avance à mm-hmm. Guédiawaye sur les résultats jusqu'ici reçus mm-hmm. voilà ça on peut clairement le dire à Dakar on attendra que Benno Bokk Yaakaar qui prépare une conférence de presse aussi donne ses chiffres parce qu'il s'agira bien sûr de donner les chiffres ou leur euh, projection mais en tout cas chiffres yi ñu jot jusqu'ici te ñu jottali ko ñëpp dégg ko la coalition Yewwi Askan Wi être en avance quand mais dépouillé gu ñu sax cinquante pour cent donc ça peut basculer a tout moment. À tout moment voilà absolument euh, donc euh, ni ngeen ko euh, gisee depuis ce matin nous sommes donc à pied d'œuvre di leen jukkal li ngeen xamante ne moom mooy d'abord euh, déroulement wu scrutin bi bu nu weesoo